جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Sëriñ Tuubaa nuyu bokki jullit yëpp ci turu sëriñ Xamsatu moom sëriñ Soxaybu di jiital ci nuyoo bi mbooleem jàngkati xasida yëpp di leen jottali it ndigal loo xam ne nii dafa jaar ci sëriñ Mamour moom Cheikh Modou Fadil wàcc ci ahlu xasida yëpp te sëriñ bii na ca bobo di sëriñ Xamsatu muy ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Modou Muntaxa mooy njàngum alquran ak xasaayit mi nga xam ne da ko baaxoo di di ko def di ci joxe ndigal mu bëgg mboolem kuy yëngu ci xasida yi ak fu mën a nekk altine incha allahu ñu day ci jumaa ji nañu ko defe woon ci ndigal lee weesu ca kër ga fexe ba ñëpp daje fa defe ndigal li ni ko sëriñ bi santaane mooy jàng fa ay xasida lim yu baree bari te mu sell te ànd ak te lépp ñu fas ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ak addiyal ko sëriñ bi kon loolu moo doon ndigal li nga xamee ne sëriñ Xamsatu neewoon na nañ ko jottali te jottali ko mbooleem jàngkati xasida yëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoo féete ci dëkk bi di di na ñëpp maase ànd dikk jëmal liggéey boobu yi ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee te xam ne loolu sunu njëriñ rekk la ndax sëriñ bi moom lépp lu mu digle jariñ nit ñi ak bindee fi rekk moo tax mu digle loolu. bëgg nañu it bu ñu yeggee ca bis ba képp koo xam ne nii daa bokk ci. ahlu xasida wala muy ku bëgg lu baax ak ku mën a doon lépp loo xam ne xeeti xéewal la luñ mën a jëfandikoo ak luñ mën a naan la ca gën a rëy ak la ca gën a néew bu ci yéem dara bu ci xeeb dara ndax ña fa nekk dañ ko yittewoo te yellut ci ab morit sëriñ bi di ko liggéeyal bu nekk di ko añal ndax képp kuy liggéeyal sëriñ bi añub ëllëg ngay soxla kon nanu fexe ba lépp loo xam ne dañ ko fay aajowoo ci ay xéewal ci anami xéewal yu ma doon ñu indi ko jox ko muridi sëriñ bi kon loolu ab soññeel boo xam ne nii na ko ñëpp yóbbaale eh, ku ko mën a jotli nga jotli ko muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kon nañ ko jàppe noonu yàlla nañ ci yàlla dimbale ba njëkk ci ak jàmm te defe ko ni mu gën a la bi te it mu nangul na ko di ñaanal Cheikh Modou Mountakha mu yàgg fi lool te ba liggéey bi nga xam ne da ko yéene liggéey sëriñ bi mottali ko ni mu ko bëggee ak sëriñ bi di sëriñ Xamsatu ñu ngi ko koy ñaanal lépp loo xam ne yéene na ko liggéey sëriñ bi mottali ko ci ak sago wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci dimbali gii mu ñu dimbali ba boole ñu ci liggéey bi ngi sant Serigne Touba bu baax a baax te sant ci barab yi mu ko jaarale yëpp sof ci li Cheikh Mouhamadou Moustapha wax rek muy ndigal lii nga xam ne sëriñ bi joxe na ko jaarale ko ci sëriñ Mamor sëriñ Mamor jotaliwaat ko sëriñ Hamza mi mu jox ñu ndigalul ñu ànd ak moom ci lépp Euh, mel ni sëñ Mamoor dafa wax ne ci turu sëñ Xabsatu euh, teel gi bëgg na ko ci teel a dajee fa pénc ma euh, ñi nga xam ne mën nañoo dem ci pénc ma ñëpp ñu dem fa bu ñu demee fan ko defee woon ceen ndigal lu njëkk lu jiitu lool fa lañ ko defewaat muy kër sa sëriñ Abdul Ahad la fa xaj nekk fa leneen luy jàll jàll ci jumaa ji ak li ko wër Euh, sëñ Maam Moor wax ne ba tey ni sëñ Hamzul wax ci euh, sëñ bi mel na ne fonk na ko lool sëñ Maam Moor nee wax na ne ni ko sëñ bi waxee nee na it fonk na ko lool nee na dafa gis ne lëj-lëj dafa bari ci àdduna bi lool euh, te jaxasoo tam gis ne Sëriñ Tuubaa gën a gaaw ci saafara lu mën a doon te nee na it yi gaaw Sëriñ ñaar yi rekk la muy alquran ak xasida ndax wax na ne nee na li ëpp ida katabtu lay wax teg ci aw xaratu isa karibtu nee na saa su ko waxee mooy xasida yi aw xaratu saa su ko waxee mooy alquran ñaar yooyu la daan waxee lu bare bare bare ñaare saa suy wax ne suñ borom defal na ma nangam wala saa ma demee ba jamono sangam am nangam wala taqalikoo na ma ak lu dul noona saa su wax la muy jiital mooy isa karibtu aw xaratu daal di teg lam ca teg li ci ëpp ci leen gis ci xasida yi moo tax nee na Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal ci ñaar yooyu nga xam ne moom lañ gis sëñ bi daan ko jëfandikoo jamono ju ne muy alquran ak xasida mu joxe ndigal ci ñu jàng ci lim yoo xam ne euh, amatu amul amatu amatu amatu yamukaay lu mu bari rek nee na xeeb nañ ko waaye lu mu sell it nee na xeeb nañ ko bu baax a baax wax na it ne nee na moom sëñ Mamor bi Hamzatu moo wax ne sëñ Mamor nee na tamit euh, ñu jiital ci ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Cheikh Ahmadul Khadim euh, mu àggale ko colet na mu ko bëggee te ànd ak moom lépp. Euh, sëñ Maam Moor wax na ma moom ci làmmiñam nee na ñun bu ma waxee ba noppi naa waxaale ahlu xasida yëpp nan ñaanal sëriñ Hamza mi suñ borom sàmmal ko boppam euh, ba li nga xam ne moom la bëgg liggéey ak yéene ji nga xam ne am na ko ak yaakaar yi nga xam ne am nañ ko ci moom suñ borom tiñ ñu suturaal ci moom ban euh, àggal lépp barkeb xasida yi barkeb alquranul karim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mboolem ñi ñuy dégg ñëpp wala ñu ñuy seetaan di gisal ci nuyoo bi ak siyaar bi suñu kilifa yi ñu toogal di ñaanal bu baax suñu am satu suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér yàggal fi mboolem jawar suñu Tuubaa gépp kilifa yi li ma doon wax lépp wax nañ ko xanaa ñun fiñ ci soññee rek mooy mboolem ahlu xaside yi nga xam ne ñoo na ci biir dëkk bi yëpp ñu ngi leen di soññ bu baax ñu ne ci biir dëkk bi ñu xam ne ndigal lii sëriñ bi joxe li ci war lépp lu xasida yëpp ñoom la war kon maa ngi soññ kuréel yi ne ci biir dëkk bi yépp ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jàngkati rajas yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jàngkati durus yi bàyyiwuñ jenn daara nan xam ne daal li nu fi nekke mooy ndigal lu jóge ci sëriñ bi suñ ko yëgee nun ñëpp nu takku fas yéene ni ko sëriñ bi bëggee ñoo defee ko noona kon nan xam ne ndigal jib na kon li nu war rek maanaam mooy nu fexe ba ndigal li mate ni ko sëriñ bi bëggee kon ñu ci soñ ñëpp ñu kenn rawatina nag ñi nga xam ne ñoo fi yor ay daara yëpp muy daara yi xasida yi ñu ngi soññ ñëpp ñu teel a waaj xam ne liggéey bi kat nañ ko waxe bu sëriñ bi xasee joxe ndigal rek lan war moo ñun ñëpp nu jóg takku taxaw kon ñun ñëpp nañ ko fonk fédération yi ne ci dëkk bi ak li nga xam ne mooy kuréel yi ak mboolo yi ne ci dëkk bi yëpp képp ku yorub jukki nañu xam ndigal jóg na kon leen lu war nañ ko def muy fexe ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullah chakartani inda jamihi jundika yaa xayra jaarin xan makasu indaka